Yon yoon bi yeb dama ko taf tafé ndax sa kar kar kar lan la lu xew mba jam? No, dara jam la xam nga munuma la won wax par téléphone parce que lima ma lay wax dama bëggoon nga ñëw ñu tok tête à tête comprendre uh-huh. ma wax la luma la bëgg wax quoi parce que vraiment yag nga ma top di ma conseiller nga may wax nan responsable nga da nga wara tak jabar da nga wara tak jabar fimna nak ci projet bobu la nek te daanaka ñorna na mat na information bi dal moy grand vraiment je veux me marier bientôt mais boy félicitations vraiment tey mo kontaan mais li dama la ko yàgg wax da nga wara yaga tak a fonder une famille et puis yow fa ngay liggéeyee responsable nga yaay sen taawu keur en plus en même temps depuis cinq ans yaa ngi liggéey manqué dara xool sa keur gi lan mo fi manqué jaba rek mo fi manké et puis bu foule ak fayda bo yoré jaba am nga et puis dalay permettre responsable Voilà. Mm-hmm. gis nga lool amul sax loy xaar dañ ci taxaw ci ni ko def mm-hmm. mais mm-hmm. il faut parce que d'ailleurs man xamé na ak <laughs> xam naa choix bi grand xawoon na metti xawoon na difficile waaw bon tànn bi yombul woon mais à un moment donné xaw naa ñafe koi ci sama xel xam nga rek man xam nga ndaanaan laa koi ah, <laughs> xam nga ku gérer cinq copines ah, di dund ak ñoom te kenn xamu ko ah. kenn ci moom ñoom xamul sa morom mm-hmm. bon loolu ndaanaan na ko mën grand ah ndaanaan dëgg mën loolu bon yow xam nga penda mm-hmm. penda mënul togg mënul liggéey liggéeyu kër. Ah franchement waaw bon Fatou bëgg na ma trop. mais Fatou elle n'est pas ouverte waaw moom moom moom yaatuwul ci nit ñi quoi du jigéen bu ubbeeku te xam nga aussi xam nga Sénégal dafa am ay réalité quoi xam nga bon. loolu moom di signe bu baax. voilà voilà ah donc bi nekk ak ndey mhm. elles sont très belles gis nga leen. rafet nañ ba fu rafet yem. Mhm. mais dañu yëg seen taar. beneen bi ci topp mooy ñoom dañuy bëgg gérer la moom la manipulatrice quoi comme je veux dire waaw dañ bëgg a manipuler te xam nga grand man ndaanaan bu toll ni man. et puis yow nga sax. loolu moom yow ak yow du dem man man ndaanaan bu toll ni man. non loolu ah, man dinaa takk jabar. ah sama jabar naan ma xaar ma ma liggéeyi te wàcc toogal foofu bul bul génn kër gi <laughs> raaman du ma genre yooyu kër gi quoi di la dëj xam nga ci ay service am ngay dox ah, man du ma man man du ma genre yooyu ak yow du loolu ah donc keneen ki mooy xujja ah. certes elle n'est pas trop trop belle mais xujja elle est ouverte bon yaatu na ubbeeku na xam nga mun na communiquer ak nit yi xam nga mun na accueillir say nit donc xujja daal am na ay qualité vraiment yu ma gis ci moom bon li ci gën a grave mooy dafa mën a togg grand xujja xoola bu la omlettalee mu day mel ni suluxu mbalax non dafa non yow wax ji frankulaayu na booy dëgg nga bëgg lekk yow lekk bi rek moo la ci rey grand ñun li ma la wax sànq ñun dañu ñëw ñëw dañu juddu Sénégal fekk fi ay baax baax yooyu faaw ñu topp ko sooy takk jabar da ngay seet jabar boo xam ne vraiment nak dina mën a togg dina yaatu mën a xam nga bon yoy aussi tamit ñun Sénégal dafa am ay réalité yo xamné ne dañ judd fekk ko fi donc so ñëwé yow pour ne pas passer à côté il faut nga suivre affaire yooyu quoi mom deug la donc motax sama choix vraiment ma porter ko certes nak amna ay défaut xam nga eh, eh, matul eh, fépp xoolal yow ya mot fepp yow yow ya gëna a manqué ñëpp nga <laughs> non mais grand kenn matul ak kon jeex na ya ko wax <laughs> léegi nak lool motax yalla war leen mën a non incha allah yow def ci ñaan rek def ci ñaan affaire bi l'a. su doon ñaan kay rek ah ah, parce que mu dégg comment tu vas chérie lu bees mais ni nga def ci ci ci quoi quoi hein? <laughs> mais grand. ah Doudou. mu demee. ci loo nekk. lu bees. ça va bien ça va bien. mbaa lépp jàmm. ça va nag affaire yi. ça va. mais di allongé. ah mais yow nga am ay gan di xam nga. ah ah sinon nag. ça va nam naa la. ça va. bon da nga ñëw juste parce que léegi léegi léegi la mu Doudou di wax sérieusement lu mu désiré seen diggante yéen ñaar. no doon jëw non du tout jëw la non du tout jëw la non jëw la sax mais jëw bu neex la quoi exactement donc yow yow yow xam nga duudu euh, xam nga li mu nekk ci man xam nga fi mu féete ci man quoi donc euh, suma grand la suma conseil la suma confident la voilà suma suma lépp la dal, sama coach la waaw sama coach la ah, ah. sinon ça va bon ça va waaw ça va naka famille bi waaw ñëpp a ngi si jàmm waaw euh, léegi léegi da nga fekk presque dañu terminer rek nga ñëw euh, vraiment mu décider loo xam ne fulla la ak fayda parce que yow la bëgg a jël comme soxna may ñaan yàlla nag loolu yàlla àggale ko ci jàmm vraiment. amiin loolu merci ñaanal ñu rek. incha allah dina baax ñaan gi moom incha allah dina am. mais nag euh, bëgg naa waxtaan ak yéen ah, parce que tamit euh, da ngeen fas yéene fonde loo xam ne. Euh, yombul parce que sey dafa don lo xamné dafa sacré surtout ñaar ñu ko séq lu gëna am importance moy nañuy communiquer di waxtaan lu bëri kenn baña neub morom dara lu yendu ci yow fanaan ci mom lu fanaan ci mom yendu ci yow surtout benen bu gëna am solo bi euh gën joxante parce que couple buñ joxante joxantee rek lu ñu mën ko daan mu doon sa xarit nga doon xaritam bu loolu amee moom di ngeen doon meilleur couple. jàmm rek ngeen am. Mhm. beneen bi mooy euh, may souhaiter nag loolu gaawam jour cérémonie bi moom pooj ba ma làkkoon laay génne. <laughs> bon grand merci vraiment merci encore xam gis naa fi ma taxaw gis naa. aussi xam nga appui accompagnement bi nga bi nga bi nga bi nga fété ci man quoi mais tamit ma bëgg la rassurer tamit ben affaire bon wax na la xudja bo gisé ma def choix ci mom donc dama am ci mom yaakar motax ma porter sama choix ci mom franchement dama am ci mom yaakar quoi voilà hmm. merci chérie vraiment Doudou content na trop tay hmm. mais nak yaakar bu mu am ci man tey lay jël sama engagement sa kanam doy nga ma seede yaakaar bu mu am ci man am naa ci moom bu ko ëpp te bu soobee yàlla dinaa ko sëyal ba mu xam ne sëyal naa ko te yàlla rek tax parce que dama ko bëgg vraiment. non bëggante moom loolu moom c'est déjà loolu moom mooy géej gi am na ndox. maintenant oui mais nag euh, sant yàlla mais na xoolal dama leen fausse compagnie.

xam nga Doudou ku baax la quoi oh vraiment ku baax la mais am na loo xam ne euh, il est temps ñu wax ci quoi parce que ñun la concerné franchement euh, sooy dugg ci mariage tamit donc il faut nga dem ci formalité yi mhm. te loolu en dehors de la famille man ak yow la engagé quoi donc dis-moi réellement man lan laa war def ci mariage bi cérémonie bi lu def tu vois lan moy dem fi luy dem fe donc loolu la quoi loolu mo ci des formalité yi voilà. ah chérie comme je t'ai dit yo xam nga sunu keur bu baax laajuñu la dara lu compliqué sam papa mom ci charia rek lay dox li nga xamanteni mom la l'islam soxla. kuy mhm. tak jabar li ngay andi loolu kessa la lay laaj. ah léegi na yow soo takkee sa jabar ba pare yaa xam loo koy defal mais en tout cas daal teguñu la dara lu metti te sama pap moom d'habitude ku ñëw di waxtaan si le même jour la lay may jabar. ah, ah bi boo waxtaan see mu may la jabar mu jabar. mais yow sa papa responsable la. waaw la kilifa di def. non vraiment lii moom man lii laa bëgg ci kilifa quoi. moom moom loolu la noonu la ah, mayee samay samay samay sœur yëpp noonu la leen mayee. ñëw ci jour bi ñu may la ci jour bi. waaw te ba pare nag. Mhm. bu la mayee jabar ba pare doo fa bu la maye mais man lool la bëgg chéri man exactement lool la xalaatoon mooy buñ la taqee ci jour bi muur la ci jour bi nga sey ci jour bi. su ko defee nga wàcc sama kër yaay bon boo wàccee sama kër yaay après ñu ñibbi si fii si kër gi <laughs> ñëw sa kër. yow yàkkamti woo rek. non du question yàkkamti lu baax boo koy def da nga ciy gaaw non amul yàkkamti en tout cas man awma ci benn pression pression bi ci yow la féete. féetewul ci man. Ah. parce que xam nga buñ mayee muur bu sëy maire yi am na yu ñuy xaar ay waat na ba wàcc xujja waat na ba wàcc selum lu mbaa jaan waat c'est vrai loolu man du pression bi féetewul ci man quand même pression bi ci yow ah mais il faut mu demee noonu ah c'est bon bon léegi bon dinaa xalaat après man après charia bi nga wax paa beeg maye bi garaawul mais man naa xalaat xam nga lan la du loolu sax mais damay xalaat juste rek yow loo yow loo si gis yow. dara xam nga man chérie man xam naa la bu baax yow. Mhm. bon awma lu may tiit ci yow. Mhm. parce que yàgg nañu. Mhm. man kay su may tiit sa côté parent say sœur te man toujours damay dégg ñu naan goro yi dañu naqaree nekkal dañu metti ak njëkk yi arrête man xoola xam nga lool da nga koy wax ku dëkk ak ay goro yow dëkkook sama yaay dëkkook samay sœur tu vois donc yow sa kër ngay ñëw sama kër ngay ñëw. ñun dëkkuñu sama yaay dëkkul sama kër xam nga loolu bu ñuy wax problème yi nekk ci sëy mooy ngeen dëkk tey maire bi bu ngeen dëkkoon benn kii sama sœur yi ñu dëkk benn gàlle donc ay affaire mënul mais yéen dëkku leen nu ngeen di amee problème waaw mënu leen am problème waaw xam nga xam naa loolu non yow da ngay def li nga war a def ñoom ñu def li ñu war a def mais est-ce que dinaa nekk à la sa biir famille non bul xalaat yooyu man maa la tànn dama gis ci yow ay qualité ma tànn la ñoom aussi dama dëkk ak ñoom ñu jur ma yar ma ma xam leen ñu xam ma xam li ñu bëgg ak li ñu bañ tu loolu moo tax man ma def choix ci yow leer na ma ne yow boo demee suma kër yaay sëy fa di nga fa mën a nekk parce que di ngeen mën a def man maay arbitre bi maa nekk ci diggante bi maa xam ñaari camp yi xam nga non loolu bu ci tiit bu wa non non yow li la tiital waxoo ko de. non yow yeneen affaire yi ñoo la tiital. xam nga non mais nañ waxante dëgg rek ay xujja waat na ba wàcceeg selum lu. xujja waat ba wàcceeg selum lu la ñu xaar de non wuy ma sëy si suba nga maire yi la bàjjan yeeg xam nga tanta yeeg <laughs> tu vois yooyu moom xam naa ne tey bon ah. xam naa ne loolu du problème ci yow. <laughs> en tout cas am pare naa man. waaw man naa. pare nga. pare nga ma pare.